amis téléspectateurs Equivox TV dal leen ak jàmm Babacar maa ngi lay lay fay Abdou Saliou Babacar tey da leere Gambie wala du fa <laughs> madame wala moo fi jaar non Abdou moom mënta ñàkk parce que nga rek <laughs> eh. waaw man moom jàmm laay dund quoi man moom xam nga àddina moom mhm. leen na fi nekk rek man mhm. duma mer de mhm. parce ku dul mer doon it kuy mer dëkk ci doon it di mer quoi man happiness quoi loolu dëgg la naa jàmm rek di nuyu waa Gambie xam naa dose bi nag bàyyeegu ma ba la waaw kon su ko defee dem seetaani revue daal di dikkaat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 3 mars 2021 dañuy ñëw ak ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey fa mu xëy génn fenn la ëmma seen mu taay si nga mu pikin daal la ñu xëy wan mu fecc bay reetaan maanaam di wane ca xar kanam ba mbégte nga cay gis yëglikaay bi nag la mu gis mooy ëmma seen daal li am ba des moom bu bëggee dégg dëgg moom géejawaay daal la ko neex la fay def parce que mbër muñ ko fa booleel daan na la moo tax yëglikaay bi na daal ëmma mooy bête noiru VIP nekk fa nga xam ne moo di géejawaay yëglikaay bi ñëw ci diggante mag Balla Gaye 2 jàpp na ne bu dee mook Balla la moom ëmma ci maanaam yëglikaay baa ko ni tudde du samay wax nee na ëmma seen vacciné na Balla Gaye ñaari yoon ñu ne ko déet ne waaye ca nga yem ëmma yemu ca de diggante mag Lac de Guiers tamit jox na ko ala nga xam ne nii moom moo di ab lëwal di xaaral nag deuxième ba moo tax yëglikaay bi nag ne bi yoon ndax moom Lac day naan deuxième ba wala da koy génne fa nga xam ne moo di géejawaay sunu làmb moo xëy tey samp boobu laaj ñeneen ñoo xam ne nii moom boo bëggee dégg-dégg seenub lëwal moom wax nañu kañ lañ koy jox askan wi muy waa Vox Arena yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom sunu lamb dinu xamal ne daal jàppal date bi te bañ koo tamit jaawale la 30 mai daal 2021 bi nu jëm incha allahu rabbi daal yëglikaay bi nee na ca la ñu fas yéene nag teg la nga xam ne nii wala tëgg seen galaa ba nga xam ne moom la ñuy tudde G5 yëglikaay bi wan ñu ka nga xam ne moo de Franc Tyson 2 Mama Lamine ak ka nga xam ne nii moom moo di Garga 2 ñoo xam ne nii moom itam am nañu ay combat yu tara tara tar waaye nag yëglikaay bi moom ñetti guerrier yu la xëy tuddal leen ko muy ki xam ne moo di double moteur ma nga xam ne ki mu war a jàkkaar lool mooy Quench bu tëngeej yëglikaay bi wan nanu ko Zal Bawol ma nga xam ne tamit caatu yarax la war a jàmmaar lool ba tey ca gëree yooya ca la bokk ak keneen koo xam ne ni ba tey mu nga ca gëree ya ñu naan ko caatu rëbës moom tamit daal ka war a jàmmaar lool mooy lis njaago ba nga xam ne moo dëkk fa nga xam ne moo di ca jàmm sunu làmba xëy ñëw tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom ñu mu jàkkaar lool la ba tax tey mu xëy daal dal di fëgg kër guy gi daal ci ay problème wàcce leen dal seen kaw wax leen lu mel ni xeme muy ki nga xam ne moo di Sikori Sikori daal waa kër guy gi la xëy tey songu leen guy 95 nag moo ci gën a métti la ndax daa jàpp ne moom ragal la te jaarukaay la te itam amul fitu lekk sama avance ndax su ko defee dootu ko tollante ki nga xam ne nii moom jàpp na ne làmb ji ñi lekk avance wala boog bëri bi warta mën a ñàkk parce que nag nee na yaa fi sës mooy tax a falu muy ñàkk jariñu wàllum wik lo ba daal la xëy tey di ca wax ñàkk ne na moom def wik la nu bëree ne na moo gën fukki yoon ak juróom toog bañ a bëree loolu mooy wax ki nga xam ne nii moom moo di ñàkk jariñu ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb keneen koo xam ne nii yëglikaay bi ñëw na ci moom muy Double Tyson mi nga xam ne nii tamit day soo bëggee dégg-dégg ah daa mel ni carrière daal fa mu jojo daara daal lam ci am ciy jafe-jafe ci neuf yoo xam ne def na ko ndax ñetti defet daal la bi gis tey ne moom la jota am yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw tey toppal ñu ko nga xam ne moom moo di ki nga xam ne moom moo di Double Tyson buñ fa jógee dañuy dem record record moom que mu xëy topp wala boog la mu xëy dikkaatal ñu ci daal mooy la trente mai ja nga xam ne ca la ñu jëm ko fekkee te tal ko muy diggante ka nga xam ne nii moom moo def Franc Tyson 2 Mama Lamine Garga 2 yëglikaay ba tamit jox nañu xibaar daal xamal ñu ne daal la trente mai daal ca la waa Vox Arena fas yéene ñëw nag fa nga xam ne moo di arène nationale ak tournoi ba nga xam ne mooy C5 ba wane fa seen bopp mu yëglikaay ba moo xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki non non mu mel ni ba tey bu ñu ci yëglikaay bi di su fa nga xam ne moo record daal mu nga xëy di xamal rëg-rëg ma nga xam ne nag adversaire ba nga xam ne moom la nit ñi doon wër naan kii la ak kële la yëg li kaay bi nag ginnaaw bukku su ma nga xam ne rëg-rëg na ko bagage teg ca ngala ni ka nga xam ne nag moom lay dajel ab iranien la bu ñuy wax daal Mehdi Bergahi loolu daal la nu yëg li kaay bi xëy tey dina ko wax leneen loo xam ne record xëy na wax nu ko muy Balla Gaye numéro de ak Aziz Ndiaye ya nga xam ne daal boo bëggee dégg dëgg moom la nga xam ne moo di vaccin moom def nanu ko ci seenu yaram maanaam vacciné na woonu maanaam daal vaccin ba moom jël nañu ko leneen loo xam ne nii moom maanaam lu metti la dal ci kanu lamb muy Ibou Ndafa ancien champion ba nga xam ne moo nekkoon écurie Séeréer nag record xëy na xamal ñu ne daal moo ñàkk la nga xam ne moo di juram mu jigéen yëglikaay baa xëy tey wax nu ko kon ñu koy ñaanal yàlla waajuram boobu yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xulle man tey li may tëje maanaam Sénégal daal nañu xam ne benn bopp la te bonn na nañ tàppe xol yi coow li bëri na xët-xët ji bëri na te yaakaar naa coow moom bu amee la muy la tamit du bëri nag ku ne yéene sa morom jàmm te nu suturaalante tey waxante lu baax leneen lu ñu def loolu rek dinañu ko yàq te bu ëllëgee nu borom la ñuy am lan teel te sukk du la tere yóbbu say om xulle Babacar ginaaw ba ñu la nuyoo ñu ànd ak ki nga xamante ni moo di sunu làmb daal di ñëw ci xëtt bu njëkk mhm. ki nga xamante ni moo di Eumeu seen lañu daal di gis euh, photom foofu mu ni Eumeu seen euh, va-t-il mettre Lac 2 abattir maître Lac 2 et Balla à ses waaw waaw man tey xam naa ne daal comme waa làmb laay waxal tey tubaab nga laak ma wax leen ko ci wolof rek maanaam lëmbe bu muy lëmbe biir géejawaay mhm. la yëglikaay bi def tey mhm. maanaam Eumeu Sène boo xoolee dugg na géejawaay quatre fois quatre fois ci VIP yi bokk mhm. parce que bëri naag Balla deux fois daan ko ñaari yoon ñaari yoon bëreeg Lac de Guiers ñaari yoon mu daan lak benn ñu niil benn moo tax yëglikaay bi jàpp ne ndax loolu noonu fa nekkee li ci am mooy loolu lépp làmb la ah. parce que Eumeu Sène du n'importe quelle personne ci làmb ndaanaan la mhm. dafa mën a bëre macha allah tarbiyu làmb mhm. kon defe naa tey mais ndax dina continuer loolu loolu insha allah rabbi buñ fi buñ fi yàlla bàyyi bala 4 avril ci la loolu di leer Babacar ku la ku la jox deux la jox waaw ku la laa jox deuxième waaw ah dooy def foo faaw nga jël deuxième bi waaw bu dee boo ànd ak suukar de dinaa ko jël waaye bu bu dee nag eh. deuxième bu nar a ànd ak i jooy nag moom lag de guerre ba du ma ko kenn bu problème lag de guerre waaw lag am na problème waaye ëmam it am na nga loolu combat lañ jëm bu métti de parce que li tax mooy. Mhm. lak daa am ci lu mu jógee. ëmma seen am ci lu mu jógee mhm. te ëmma li mu jógee daa metti lool mhm. muy defet diggante ak Modou Lo bu yàggul Lac de Guiers jóge ci ndam loo xam ne mook Boy Niang te xëy na su sañoon ndam loolu ci biir géej ba la ñu yëkkatee loxoom mais ñu ngi ko joxee ndam li ca CNC ah, maanaam par recours dëgg la yaa ngi dégg kon moo lay wan ne ñoom ñaar koo ci ne da am problème rek bàyyi ka ca des da ngaa kenn ki mais ñoom ñaar ku ci nekkul ci gutta amul Euh, ba tey ñu ñëw ñu des ak sunu lamb ki nga xamante ni moo di Franc Tyson 2 Mama Lamine ak Garga de Vox Arena organise son cinq g le 30 mai. waaw tournoi wu 5G. Mm, waaw G moom bu ñu ko waxee tubaab a koy bind. <laughs> cinq tam defe naa muy juróom. ba muy juróom waaw. muy juróomi grand combat si benn journée. Mm-hmm. loolu nag comme li ma li ma li ma waxoon ah. mm-hmm. parce que man damay bëgg di wax samay waxi daaw damay bëgg muy nekk sama waxi ren. Mm-hmm. te Cheikh Abdoulaat Mbacke da koo waxoon noonu na booy jàpp gor mhm. jàppal ki nga xam ne waxi daawam ak jëfiranam ñoo méngoo dëgg la loolu laay parce que mhm. balaa may dugg si fii di fi ñëw en mhm. comme employé di fi liggéey bi combat yi taxawee comme damay dund làmba laa leen ni ñi xaw ma ku leen di taxawalee lu combat waaye naxu leen parce que Franc Tyson 2 maanaam ci làmba amul combat bu ko gën a neex parce que combat jànq la te ñaari mbër yi doo ci ne kii dafa néewle lii kii kii non non déedéet parce que Tyson 2 nga gis Franc jàpp ne Franc mën ëpp na ko doole mais est-ce que loolu moo am mhm. parce que bëri ak góor a soog combat bu metti dëgg la daan ko mhm. yaa ma lay wax mhm. kon ne bu tar la Garga 2 Mama fi mu nekk nii problème bi mooy ñoom ñaar nu ñuy bëree parce que kee daa yor ndox tu bëree te kee dafa yor sañ-sañu bëree maanaam Garga 2 dafa yor ndox tu bëree kii yor sañ-sañu bëree muy Mama Lamine muy combat bu tar sans compter yeneen combat yi ci ne xam nga alliance biram si karkat boobu ci bawal mboolo ak caatu ngéwél bu yoof loolu beneen affaire la Baye Mandione Junior Fourière Moustique Noiro euh, kon daal Vox Arena comme ni ma koy ñaanale promoteur yëpp ah yàlla nañu réussir journée bi journée bi la 30 mai ba tegaat ci leneen mais loo ci mën a dégg daal mhm. ah macha allah képp ku dund làmb moom yi combat doo ko dégg nga ne soof na Babacar sunu làmb des ak ñun ci ñi nga xamante ni moo di double moteur caatu rëbës ak zal euh, zal bawal les guerriers de rëbës en mission commando. waaw mission commando dina métti parce que lañ jëm a mhm. parce que bu dee ñoom ñett ñoo ñoo bokk rëbës. Mhm. ñoo bokk écrit. Mhm. zal bawal double moteur ak caatu rëbës. bu dee double moteur coins bu lansaar lay bëree bu bari ñi te Coen su ko xam nga boo ko xam ne dégg nga turam xale bu bëri mbooloo am tamit macha alla waaw loolu Baba Jaw ko tëgg ñu ne déet ne waaye Zal Bawol jël moom it mu bëri combat bu gaaw daaw caatu rëbës mi jël lis njaago tey boo demee jàmm gën maanaam mbooloo ma si yor da mhm. koy ma tuuti nga mën koo comparer rek mi caatu mi mi boobu yor mhm. euh, ali euh, xale njaago boobu mhm. lis njaago lis njaago mm, kon moo lay wan ne kon xale rëbës yooyu muy zaal boobu muy double moteur muy caatu rëbës ah fa njëm metti na waxuma la mission commando kay waaye <laughs> loolu ñu mën nañ ko def ndax ci combat yu métti lañ jël waaw kooku nga xamante ni moo di ñàkk jariñu la chef de file de Thiaroye mbooloo le huit kilos c'est mieux que la lutte. la lutte que que c'est c'est mieux que de ne pas lutter. waaw waaw mhm. maanaam bëree gën bañ a bëri wax na dëgg. ku ah, amul yaay namp maam ku amul yaay namp maam te mbëri dañuy dañuy joxe dépense nag Babacar bien sûr te toog bi dafa yàgg lan lenn rek laa si yokk mhm. huis clos boobu yàlla nay arrangé ñuy tëgg parce que buñ nee huis clos mhm. kuy tëgg kan la promoteurs yi génne million joxe waaye millions itam xanaa doo ko génne di ko sànni nag ci ngelaw kon promoteurs yooyu yàlla nañu am ñoom lu war a tax bu fekkee huis clos bañ koy def mm-hmm. mm-hmm. ah, ci ci laa ko xamoon waaye Sikor mii day daa ñëw ci làmb ji Sikor yi descend le poulain du roi simpi <laughs> waaw moom waa kër guy gi daa bëgg bëri xam naa moo tax mu ne guy 95 ragal la tap ah, Sikor ah, yi nag xam nga des fois ma tapas la di di di la di di di tooñ ngir bëgg jot di la dir mbagg waaw Youssou Ndour lu mu la am na way mu fi woon Youssou Ndour daal jéem jéem jotu la day seet fi nga gën a jege seet fi nga gën a jege mu jaar mu jaare fa surtout papa ah, boo jàkkaarloog moom ne ko ragal nga mu jéngu de kooku di double Tyson kas la barak double Tyson daal li ma xam mooy hmm. xale bu am avenir la moom double Tyson te mu ngi wane boppam Babacar laa mujj xale yëpp am avenir de. waaw xam nga mais xam nga xam nga avenir ñëpp ko am. Mhm. doomu aadama yëpp am avenir. Mhm. waaye ndax di ko defar. Mhm. foofu la mbir mi ne xam nga dina am avenir am talent am lépp. waaye ndaysaan du ko nangoo defar. da koy foye day mel ni Babacar di taxawaalu. fuñ ko woo mu dem fuñ ko wut mu dem du du ko ko encadré. waaye bu nangoo ko ko encadré. mu teggi mbiram ci yoon mar na mën a bokk si làmb. kooku nga xamante ni moo di rek Reug croise li ràññee Mehdi Bargui waaw muy ñetteelu combat am mhm. kon léegi adversaire ba leer na doomu Iran la mhm. di Bergahi ah lañ ko bindee ah, ñu ko ci ñaanal ndam rek mhm. parce que tamit loolu MMA la naa ne buñ ne MMA ak sénégalais koy def international la kon na ñun ñëpp dañ koy soutenir ci boobu di soutenir Bombardier di leen soutenir ñoom nga xam ne daal ay doomu Sénégal lañ di takk drapeau réew mi génn dem jongante ji ñu ko ci ñaanal ndam rek ba tey record daal di ñëwaat ak ñun ci li nga xamante ni moo di lutte Vox Arena prend date pour la présente saison. waaw jàpp nañ daal bés. Mhm. pour lu leer nañ yéen ñi ñuy suivre jàpp leen ne daal le 30 mai bu soobee suñu borom ah bu yàlla defee jàmm te yàlla na ko yàlla def te am nañ ci yàqin. amiin amiin le 30 mai moom Vox Arena dem Léopold wala boog arène nationale. tëggi fa tournoi G5 waaw loolu daal dina am. ndax xam naa moom wax dëgg yàlla. man ko def huit kilos. ah lii boo ko defee huit kilos kay. ndax lu que ah, boo yi seen parce que ñii seen seen i nit rek dañuy fees stade. déggul ma mhm. la ñuy ndar keppe xibaar yi. di di di ñaanal réew mi jàmm di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm. di ñaanal directeur général lépp lu muy sàkku aussi tamit ci lii yàlla suñu borom defal ci barke Seydina Mohamed du nuyu ñëpp di la ñaanal Babacar yow tamit jàmm euh, am kontante bokk ak yow plateau bi euh, di la wax ni daal macha allah leer nga fa nga ne woon de <laughs> <laughs> macha allah merci beaucoup di la nuyu Abdou di la remercier ah mhm. nuyu soppe yëpp ak am di jàmm yi suñu euh, soppe yëpp mhm. waaye du ma mën a fàtte le commandant bi nga xam ne moo nekk en soir ba ca Kaolack parce que nit koo xam ne kilifa la mhm. te di la bëggee mhm. di la woo di la encouragé mhm. loolu defe naa yombul kon commandant Fall maa ngi lay ñaanal jàmm bu baax a baax a baax di nuyu ngañ sow kenn tukki ca États-Unis ñu ñëpp sama ay soppe la ñu mais du mën a ñàkk ma demaat tamit ba Sandaga ak li ko wër Petersen ak yëpp lu ma sol rek borom la gis nga maillot Brésil bii gis nga jean bi gis nga dàll yu blanc yi lépp ñoom la kon maa ngi leen di bëggee mhm. lonet itam Lamine Seck bu Lutte TV sama cheikh bi moom ma ko jox moom tamit maa ngi koy ñaanal saa su nekk rek jàmm di ñaan Sénégal daal yàlla na fi yàlla def jàmm xeex bi nag métti na ci mhm. politique beeg mhm. yooyu waaye la Youssou Ndour wayoon rek waaw bu ngeen deeti xeex na nooy xalaat suñu juntukaay yëpp yàqu na la te Abdou doonu fay Babacar duñu fay ah, kon nag li ci des mooy yow mi ci kaw yor pouvoir bi doonu fay yow mi opposé soxla pouvoir bi doonu fay kon nan nu sóoraale ñu néew doole jàmmay mbokkam yàlla na Sénégal am jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jàmmante nañu ah oui wàllu saf na kii Ah ouais Attention Jackson D'accord.